al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak ngi bu baax leen siyaar di jéglu ci gëj gi ci bi liggéey magal gi rek te feeñ na ci ñëpp xam naa ne moom sant nag bu baax a baax ci magal gi ni mu doxe ak ni muy yokk ak mu jot ak li ci am ci ay xéewal ak ay ñaan ak li ci li li ci yokk ci góorgóorlu ci li sëriñ bi bëgg sant leen ko suñu borom tuuti nañ ci lool nag waaye nag ginnaaw sant yàlla du dey te moo ko sàkku ah ñu ñu ñu góorgóorlu ci ku ci nekk lii xew nag ba tax kàddu sëriñ bi jóg ku di ku yàgg ci yoon sëriñ Tuubaa du la bett ndax seytaane saabu lislaam amee ndam bu ñëpp kontaan réew mi mel lu jëm a sopp lu jëm ci soppeeku rek dana fexe ruxruxal ab tànkam jëm dara ndax fan yi wax dëgg yàlla Sénégal neexoon na lool de neexoon na lool de immigration Masaalikul Jinaan bi li ci xew lépp te fekk boo am ñu ko fi jiitu waaw ndax ci groupe yi danañ fi wax histoire pharmacie gi gon fu ñu doon teree ñaari jullit ñu juli wax nañ fi benn bureau union européenne xuma boo xam dañuy tere ko fa julli benn école taxaw da ngeen ay jigéen yu mooru du ngeen fi jànge yëpp ñu nekk ci débat fan yooyu nit ñi jëli seen xol naqari lool ak lay xew bitim réew ñu wote ay loi yu bon du wane ne euh, le père facultatif bàyyi bàyyi bàyyi bu amul solo nga xam ne jigéen mën naa am doom daal léegi te soxlawul sax doom yi di di xam ne jiwee bàyyam soxlawul ak réew yooyu nga xam ne ña ngay jigéen goo xam ne ara cosaanam arab la ne dañay day jiite jàkka nee na góor jigéen mën nañ bokk benn jàkk mën nañ bañ mën nañ sol leen neex waaw yépp di nekk lu yàq lislaam diggante boobu sëriñ bi def mission wallahi ànd ak convoi mel ni li ñu fàttali yenn sallallahu alayhi wasallam mu jógee Madina jëm màkk ndam lu rëy la jóge Touba def convoi dem Dakar fan yam fa toog Dakar neex lool sensé lool ñëpp di ñëw di di di barkeelu ba ci ba ci kat luñ sax ñëw di barkeelu barkelu ci ñoom mu teewees ñëw ñaan ko sax ñu wàll leen tuuti suñu ko bañ mën a àggale seenu jaamukaay waaw dem ba bisu inauguration bi mu neex lool ba ay ñu bokk yeneen diine sax ubbi seen seen seen école nit ñi mën faa julli ñaari président yoo xam ne daaw maanaam dañoo bokk lépp te mënuñoo tàqali ko lépp juróom-ñaari at dara du du du jàppante sëñ bi jubale leen réew mi jëm ci neex lool di changé ñoo màggal Tuuba ah ngeen dawal seytaan jóge fee loo xam ne nii léegi nag feeñale lépp naa des ci benn audio wax ci sama xalaat mbirum Aida Diallo man li ma ko gisee lu yomb la maanaam dëgg dëgg moo feeñ dëgg rekk a feeñ sëñ Béthio ku xam sëñ Saliou ak dong yi ci daara ji li lay nettali ci moom dafa liggéey sëriñ Saliou ba jeex tàkk sëriñ bi gërëm ko muy lu wér waaye xam nga sëriñ Tuubaa dooleem dafa bari ba nga xam ne boo ko sëfee boo boo ko sëfee nit rek fokk fokk mu dis ci moom sëñ saa li mu tegoon ci sëñ Béthio daa dis ci moom man loolu laa gis ci loolu nag seytaane song na ko jàlle ko ci jigéen ñi songoon ko song gu métti métti métti waaye fa ko yàlla dimbalee mooy coow laak lépp ci jëmmi mu la yemoon ndax Sénégal gi ñu nekk lu fi waay def du ubbee ndax kilifa yu baree baree bare bari ci wàllu diine ak wàllu àdduna dégg nañ dara ci seen njaboot ñu di ko wax doomu doomu sëñ diw wala doomu ministre nangam wala doomu président nangam fekk nañ ko bu def lii fekk nañ ko bu def laa seq naag diw seq naag kaa gi neen fetal def dawal na oto mbëgg nit waaye journaliste bi su ne ko ngal-ngale waaye doomu doomu sëñ Béthio def na fi dara ma ne loolu mosuma ko dégg te bu ko defoon mu siiw ndax journaliste yi maam loolu lañ yàkkamti surtout moom ni ko teg woon bët kon nga xam ne liggéeyam yëpp daf mel ne yàlla da ko tóoral ci njaboot gi sëñ Sall du ko liggéeyam yëpp da ko dajale denc ko ci njabootam waaw ndax ku xool doom yi ni ñu selle ak ni ñu taxawee macha allah nga xam ne amuñu jafe-jafe te mosuñu leen dégg ci xuloo walla ŋaayoo wala leen lu ñaaw la doon ñëw ci soow mi nag loola moo beddeeku tey nag feeñ fës mooy Aida Diallo catégorie googu kon lu baax a baax la mooy ñoom ñu fës ci xam ne ñii ñoo ñi doon na ñi doon xajamal liggéey liggéey sëñ beccu ci wetu sëñ Saliou ñoo ko doon xajamal que li sëñ Saliou Saliou defaroon dara yàquwu ci ñoo ko doon jéem a xajamal ñi ngi nii wuti wut ak ñu jëfur léegi feeñ nañ ba nga xam ne li ci des nag mooy ñëpp xàmme nañ leen léegi identifié nañ leen ab bandi nag moom ak ab sàcc wala saay-saay boo xasee ba xàmmee ko ba xam ne kii la ah la ci des nag mooy jëflante moom rek sëñ bi moom jëflante naa ñoom waaw mooy génnee yëkkati kàddoom wax lu leer kàddu yoo xam ne ni yàlla nañ ci yàlla musal yooyu kuñ ko wax di ko jëmale ci sa jëm sa war ngaa tiit yëkkati mbiram sëñ bi wala yow sa jëmmuy bopp tax tax sëñ bi wax lu mat vingt minutes dégg nga vingt trois mille sëñ bi daanaka di wax ngir sa jëmi bopp leeral lam lam seet ak yow lam la digal nga lànk te muy digal ay président ñuy def di digal ay président ñuy def woo ab taaw ne ko sa bàyyi ñëwal ma denc ko fii te taaw bi amoon ndigal ci bàyyam mu nekk su ma faatoo nañ ma denc feneen muy benn salaam sëñ bi ñëw joxe ndigal ñoo ñu dégg ko yow yow yow ngay jigéen war a wuti borom kër sëy dégg nga nga mën a défier loolu ko moom mooy toroxtaange dëgg te loolu day wane rek ne kon ñi doon jéem a yàq liggéey bi Serigne Saliou def ci Sëñ Béthio mooy mooy catégorie googu kon daal dañoo feeñ fés kon lu baax la li ci des nag moom lu yomb la moom ndax xam naa ne moom Sëñ Tuubaa moom am na dongaam yoo xam ne bu yëgee sëñ bi am na lu ko moom seen benn guddi képp doyul ci catégorie googu man gëm naa ne balaa yàgg moom daal dana xew loo xam ne nii dana ko rëcc bu faaw bu ko yàlla yërëmee nag dana ko wëlbati mu ñëw tuub jéggulu buubu lépp lu mu amoon bagage am jébal sëriñ bi te dugg ci rànk yi ah yàlla na ko yàlla def loolu laa ko mën a yéen di leen jégalu baax ci guddaay yi jërë ngeen jëf